ba tax ba man Babacar xam naa ne maa war a raw ba tax ba man Babacar xam naa ne maa war raw mbooleem ku lay sant ngir yow rek yaa ma teral bi yàlla tee nga def nag buntu yow la yow bul def lu yegg si nga far jël loola kon du rafet góor ak jigéen ak mag ak ndaw ñépp nekk fi yow te seeni wërsëg fi yow lay dox si waxtu jot yewul ku dee si defar loo muy nelaw rafetul ku nekk jox ko te ñuy sant ngay gërëmit ku dee si séddale loo day jox ku nekk yëfam te fab yëfam loolu moo gën moo di sax yëfi nit ku jàll day jàlle boo jàllee ba noppi jàlleel ñu jàllagul kon nga am ndam yàlla wóolu la it jagal sa bopp te yam ca yiw la waaye du ndam lay ndam nga jag jagalu nit boo defee ni le mat bul fàtte mukk sa bopp ak nit ku jàpp ci yow bul fàtte it sab xarit bul fàtte benn jullit koo gis mu sopp la yàllaa tax ba loo jële na ca yàlla war na nga bañ ca fàtte kenn yowit te fàtte ak càgganak mooy yàlla ñoo xaritoo bul fàtte kenn te bul sàggan ci menn mbirit koo xam ni kii dafa laa doyloo ba dénk la lëf farlul ca dénk ba ngir moo di njulit di ngorit ku saytu nit ak yëf ndénkaane rekk la yor te saytu ngaw nit ak yëf farlu war na la kët lu dikk am nga ca lëf koo saytu am na ca lëf seddul te sedd sañoñ lii daala jub te rafet lu dikk am nga ca lëf koo saytu am na ca lëf seddul te sedd sañoñ lii daala jub te rafet